sëriñ Abdourahmane Mbacke sëriñ Abdourahmane Mbacke mi ngi feeñ jamono nag ci atum 1914 ci dëkk bii nag di njaareem di doomu soxna Busa Njaay ak sëriñ Balla Coro Mbacke bi mu feeñee jamono waajuram nag sëriñ Balla Coro moo ko yëgal nag magam sëriñ Touba Cheikhul Xadim sëriñ Touba Cheikhul Xadim nag di sàkku nag ci rakkam sëriñ Balla Coro mu fob nag doomam ji tudde ko nag Abdourahmane nag ibnu Hawsu Abdourahmane nag ibnu Hawsu mi ci saxaaba yi toppoon nag ci ginnaaw rasulullahi sallallahu taala la bokkoon saxaaba boobu la sëriñ sëriñ Touba Seexul Xaddim tudde nag doomu rakkam ji nag di sëriñ Abdourahmane Mbacke moom sëriñ Abdourahmane Mbacke am na nag ko mu bokkal soxna Boussa Ndiaye ak sëriñ Balla Coro Mbacke muy sëriñ Mbay Mbacke jaaxal ibnu soxna Boussa Ndiaye ibnu sëriñ Balla Coro Mbacke kenn rek la bokkal waajur wu góor nag ak waajur wu jigéen muy sëriñ Mbay Mbacke jaaxal laataa ñuy xuus sax ci turandoo sahabab yonente bii nag di sëriñ Abdourahmane Mbacke ñu wax leen nag ñi ko meññ nag ñoom ñooy ñan soxna Boussa Ndiaye doomu sëriñ Daaro Assane Ndiaye la sëriñ ginnaaw ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag ci la bokkoon waajuróom wu jigéen nag di soxna Busa Njaay ba tey nag waajuróom nag sëriñ Daaru Asan Njaay soxna nag miy waajuru sëriñ Tuubaa Seexul Xaadim itam nag lu ko tudde ba tey nag soxna Busa Njaay nag mi meññi nag sëriñ Abdourahmaan Mbàkke doomu soxna Assu Jóob la soxna Assu Jóob nag mook Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina ñoo bokk nag soxna Seynabu Njaay ak Maam Saaliwu Fall boroom Daaru Xafoora soxna Busa Njaay mi meññi nag sëriñ Abdourahmaan Mbàkke mi jarbaatu Maam Cheikh Ibrahima Fall la Lamp Baabul Muridiina saaliwu faal boroom daaru xafoora di doomi nag sëriñ daaru asan njaay waajuroom wu góor nag moom sëriñ abdourahmaan mbàkke mooy sëriñ bàlla coro mbàkke doomu soxna coro jóob la ak maam mor anta sali mbàkke di rakki sëriñ tuubaa seexul xaddiima bokkitim nag ci jàmbaari sëriñ tuubaa seexul xaddiim féetale woon njaareem sëriñ tuubaa seexul xaddiim itim nag defoon na ko chef de village u njaareem nekkoon na itim nag ku taxawu woon ku baax ki sëriñ tuubaa xaadim rasuul ci diir bi mu def nag njaareem ci diir boobu mu def njaareem itim ci la doomam ji nag feeñe jamono sëriñ abdourahmaan Mbàkke sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul sàkku itam nag ci rakkam sëriñ Balla Coro mu tudde ko itam nag kenn itam nag ci saxaabay yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di Abdourahman ibnu Awfu jëmm yooyu nag ñoo meññ nag sëriñ Abdourahman Mbàkke mii bi mu matee dal alxuraanul karim waajuram sëriñ Balla Coro ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag li ko yitoon Seexul Xaadim nag moo ko dalal alxuraanul karim ginnaaw bi nag lañ ko jébbal nag ku ñuy wax sëriñ Asan Njaay nekkoon itam nag ci dëkk boobu nag di njaareem ginnaaw bu mu jógee nag ci loxoy sëriñ Asan Njaay am na naaru gànnaar itam nag yu nekkoon njaareem Maryam daanañ ko jàngal itam nag alxuraanul karim sëriñ Assane Ndiaye moom nag ak naar yooyu nag nekkoon nag njaareem ñoo ko jàngal nag alxuraanul karim ba mu mokkal itam nag alxuraanul karim bind nag ab kaamilam jébbal ko nag magu waajuram bi nag di sëriñ Touba Cheikhul Xadima mu wéel nag am njàngam ñu jébbal ko nag ci njaareem sëriñ Mouhamadou Diop Dagana bokkoon itam nag ci jàmbaar yi toppoon nag ci ron ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuula ginnaaw sëriñ Mouhamadou Diop Dagana lañ ko jébbal nag sëriñ Mouhamadou dem nag ci njaareem ba tey mu wéel fa nag am njàngam ci wàllu nag xam-xam bi sëriñ tubaa seexul xaddim nag génnee àdduna waajuram nag sëriñ bàlla coro cheikh mamadul moustapha mbàkke mi nekkoon nag xalifa sëriñ tubaa seexul xaddim nag la ko jébbaloon ba tax na itam nag cheikh mamadul moustapha mbàkke nag wéel na nag am njàngam moom sëriñ abdourahmaan mbàkke cheikh mamadul moustapha mbàkke nag wéel na nag am njàngam gede nag la ko yóbbu ci loxoy nag sëriñ mbàkke buso sëriñ mbàkke buso itam nag doomam nag sëriñ asan buso nag la ko jébbaloon ginnaaw sëriñ mbàkke buso nag ci gede ci loxoy nag sëriñ asan buso cheikh mamadou moustapha itam nag jébbalaatoon na ko Habibu Mbàkke imaam ci bi mu koy jox nag ñoom sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke sëriñ Abdourahman Mbàkke mii itam nag ci ñooñu Cheikh Modou Moustapha Mbàkke joxoon nag sëriñ Habibu Mbàkke imaam itam nag ci la bokkoon ginnaaw sëriñ Habibu Mbàkke imaam la ko Cheikh Mamadou Mbàkke nag yóbbu gànnaar ngir mu wéel nag am njàngam gànnaar googu itam nag def na fa juróomi at mook sëriñ Mbàkke Madina ak sëriñ Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma itam nag ñoo fa nekkandoo woon naar bu ñuy wax nag Abdourahman ibnu Uglul na moo leen yoroon nag ci gànnaar wala moo gànnaar nag la delsiwaat nag ci loxoy cheikh mamadou moustapha mbàkke cheikh ko nag ci dëkk bii nag di daaru naim mook sëriñ touba cheikh abdoulahat mbàkke ak sëriñ touba sëriñ soye bu mbàkke nag lañ fa yóbboondoo ginnaaw bu mu fa defee ab nag la ko cheikh mamadou moustapha nag ñaanal wax ko nag mu delluwaat nag ci ron waajuram nag sëriñ balla coro ci loxoy sëriñ balla coro nag la wéy nekk ba ne fi cheikh mamadou moustapha mbàkke nag bàyyi ko sëriñ balla coro nag ko cheikh mamadou faadal mbàkke ci loxoy cheikh mamadou faadal mbàkke nag la nekk juróom nag sëriñ Balla Coro nag génn àdduna sëriñ Abdourahmane Mbacke dem nag toog nag toogaayu sëriñ Balla Coro nekk nekkitim nag xalifab sëriñ Balla Coro Mbacke bu njëkk fanweeri at ñeent nag la wuutu waajuram nag sëriñ Balla Coro Mbacke taxawu nag ay rakkam sàmmitim nag njaboot gi nga xam ne nii nag ñoom la fi sëriñ Balla Coro Mbacke bàyyi woon dundalitim nag kër waajuram ànd ak nag taalibe yi yaakaaroon nag sëriñ Balla Coro Mbacke bépp dëkk boo xam ne nii itam nag sëriñ Balla Coro Mbacke itam nag moo ko fi bàyyi woon wala daara joo xam ne nii itam nag Balla Coro Mbacke itam nag moo ko fi bàyyi woon woon léppit nag mu sàmm ko nag taxawu ko ba xat nag dëmm ci képpitim nag ko waroon a nawaat sëriñ Balla Coro Mbàkke sëriñ Abdourahmane Mbàkke nag tax na itim nag nga nawaat nag sëriñ Balla Coro Mbàkke ndax nag yar nag bu ci Cheikh Modou Moustapha Mbàkke amaloon nag ci jëmm ji ndax doxaliinu Cheikh Modou Moustapha Mbàkke nag la yore woon nag xilaaf ak sëriñ Balla Coro ndax bokk na itim nag ci équipe bi Cheikh Modou Moustapha Mbàkke yóbbu woon daaru nahi ngir ñu nekk nag ay xalifa nag ci seen kër baay te moom it nag bokkoon na itim nag ci équipe boobu demoon daaru nahi ngir wuutu nag seen baay sëriñ Balla Coro Mbàkke sax di génn àdduna sëriñ Balla Coro Mbàkke itam nag defoon na ko jëwriñu mbooleem nag ay daaraam wala mbooleem nag njabootam gi ba tax na nag ñaar fukki daara ak juróom-ñett nag yi fi sëriñ Balla Coro Mbàkke bàyyi woon sëriñ Abdourahmane Mbàkke itam nag moo nekkoon seen jëwriñ ci dunduk sëriñ Balla Coro Mbàkke moo tax itam nag bi fi sëriñ Balla Coro Mbàkke nag bàyyi koo xilaafa gi itam nag du metti ci moom ndax yar bi ko Cheikh Modou Moustapha Mbàkke yar te it nag nekkoon na jëwriñu nag sëriñ Balla Coro Mbàkke ci kanamu nag waajuróom ba tax na itam nag bu wuutoo nag waajuróom ginnaaw lépp itim nag dana ko miin kon nag dara itim nag du mën a sooxe waaye mu yor nag jikkoy boppam nekk itim nag ku tabe nekk itim nag ku yiw waaye nag ku bëggul nag daray caaxaan noo man di mel nag soo jaaree nag ci siraatal mustaqima xaritu sëriñ abdourahmaan mbàkke nag ngay doon waaye soo jaaree nag ci safaan ba yaag sëriñ abdourahmaan mbàkke itim nag du ngeen mën a bokk jotaay ndax loolu itim nag du aw doxalinam ba tax na itim nag képp koo xam ne nii nag xamoon nga sëriñ bàlla coro mbàkke xamoon cheikh modou moustapha mbàkke xam ne nag sëriñ abdourahmaan mbàkke mii nag seen doxalin dong nag la yor sëriñ Balla Coro Mbàkke bàyyi woon itam nag mu dundal leen lépp loo xam ne nii itam nag manqué woon na itam nag ci dëkk yooyu mu def ko fa ndax xam na ne kat dëkk yooyu nag léegi nag moom la ñuy xoole nag sëriñ Balla Coro Mbàkke moo xam nag dëkk bi nag di Mbàkke Saalum dëkk bi itam nag di Mbar dëkk bi itam nag di Njaay Dànq ba ci daara jëm taxawaloon boppam nag te suriwul dara nag dëkk bii nag di Mbar Mbàkke di Daarul mi nan mu wéy nag toog toogaayu waajuram nag di sëriñ Balla Coro Mbàkke toppit nag ci ginnaaw Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke moo toog nag toogaayu sëriñ Tuubaa nag bi Cheikh Mamadou Fadal Mbacke nag tàmbale waatee nag liggéeyu jumaa ji Serigne Abdourahmane Mbacke bokkoon na itam nag ci jëwriñ yi Cheikh Mamadou Fadal Mbacke nag àndaloon itam nag ngir liggéey nag jumaa ji Cheikh Mamadou Fadal Mbacke nag féetale ko ci wàllu nag suuf si booba nag kàmb yi nekkoon Touba nag dañ fi doon gase suuf nag mi ngi woon nag ci ginnaaw ay nu raxmati ginnaaw kàmb yooyu nag nekkoon ci ginnaaw kër Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke dend ak nag ay nu raxmati gasaatoon nañ nag yeneen i kàmb nag ci Touba ngir itam nag liggéeyu jumaa ji kàmb yi nag moo nekkoon itam nag ci sura nekkaatoon nag ci sura gasaatoon nañu itam nag yeneen i kàmb nag ngir liggéeyub jumaa ji kàmb yi nag moo nekkoon nag ci gaar bu mag ginnaaw kàmb yi nekkoon nag ci gaar bu mag lañ gasaatoon nag yeneen i kàmb nag ci dëkk bi mooy kàmb yi nekkoon nag ci Tuubaa Ndaamaatu ñeenti kàmb yi nag seen suuf nag moo liggéey jumaa ji sëriñ Abdourahmane Mbacke nag moom sëriñ Balla Coro bokkoon na itam nag ci ñi nekkoon ci liggéey bi sëriñ Abdourahmane Mbacke itam nag taxawaloon na fa daara joo xam ne nii itam nag gas suuf dong moo taxoon itam nag jawriñ ya nekkoon fa moom itam nag saa bu xëyee nag fa nag mbooloo mi koy yaakaar nag ngir sëriñ Balla Coro di wéyal nag ndigalul cheikh Mamadul Faadal Mbàkke ci wut nag suuf soo xam ne nii nag ci lañ mën a tabaxee nag jumaa ji ab otop 46 itim nag la sëriñ Abdourahmane Mbàkke Mbar yoroon ngir lépp loo xam ne nii nag taalibe yi soxla nañ ko oto ba itim nag mën na itim nag di daw service yooyu loolu itim nag tax na itim nag cheikh Mamadul Faadal Mbàkke bind na ko nag ay lettres yu bare bare bare bari di ko sant ka gërëm ci taxawaay nag bi mu taxawoon nag ci ronam boole koog nag wépp sas woo xam koy laaj ci kenn mënu ko ci ginnaaw sas woowu nag ñu daa sase nag ci jumaa ji jëlaatoon na nag sasu boppam di ko joxe nak ci jumaa ji bokkuli tim ak sas wi mu mu dul faadal mbàkke nag di laaj itim nag doomu mag ñi wala mu koy laaj nag mag ñi ci liggéey boobu itim nag la ànd ak cheikh mamadul faadal mbàkke ba ni mu noppee gis nag mu dul faadal mbàkke mu dul faadal mbàkke itim nag defoon na ko jëwriñ ci yenn daara yoo xam ne itam nag taxawaloon na ko moo xam daaray aliya ak yeneen ak yeneen mu ànd caag nag doomu sëriñ ahmadu ndumbe mbàkke ja di sëriñ muudu xabbaan mbàkke ak lenn itim nag mag ñi nga xam ne nii itam ñi ngi woon itam nag ci ron cheikh mamadul faadal mbàkke kullëre googu mu amoon ak cheikh mamadul faadal mbàkke taalibe googu mu nekkoon itam nag ci ron cheikh mamadul faadal mbàkke ba nekkoon ci itam nag ku ràññeeku tax na itam nag cheikh mamadul faadal mbàkke itam nag gërëm ko ay yooni yooni yoon cheikh mamadul faadal mbàkke itam nag faboon na doomam yu ñuy wax nag soxna abi mbàkke joxoon ko ko nag ngir mu dëkkoo ko mu cheikh mamadul faadal mbàkke nag la jébbal léppam nag sëriñ tuuba cheikh abdul ahad mbàkke di ko xoolee xaadim rasul ndax seen waajur sëriñ balla coro mbàkke nag ci atum 1947 doon na leen xamal ne ku fi nekkal seexul xadiim na ngeen topp nag ci ginnaawam ndigal loolu nga xam ne nii nag moom la leen seen waajurut bàyyee loon ci ndigal loolu itam nag lañ wéy nekk ndigal loolu itam nag ci la sëriñ Abdourahmane Mbacke nekkoon moo tax itam nag ginnaaw Cheikh Mamadou Fadal Mbacke mu topp nag ci ginnaaw sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke nag la génnee àdduna ci atum ci hôpital nag principal nag bu Ndakaaru ñu jëlee ko fa ko Touba jébbal ko nag Balla Coro Mbàkke bi mu matee yor soxna nag moom sëriñ Abdourahmane Mbàkke ñu delloo ko nag ci ëttu waajuram wu jigéen di Daaru Njaay boole ko faak nag soxna suñuy wax nag soxna Faati Njaay na nag ab taawam di kim fayee nag waajuram nag sëriñ Balla Coro Mbàkke di maam Balla Mbàkke soxna Faati Njaay moom itim nag moo ko meññi benn bant boobu itim nag la am ak soxna Faati Njaay di sëriñ maam Balla Mbàkke yoraatoon na baneen soxna nag moom sëriñ Abdourahmane Mbàkke muy soxna Abi Mbàkke bintu Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke mook soxna Abi itim nag am nañ ak njaboota ñu cheikh abi mbàkke di kam faye xaadim rasul aku ñuy wax sëriñ habibu mbàkke di kim faye nag sëriñ habibullaahi di rakki ku baax ki sëriñ tuubaa xaadim rasul te nekk itim nag ci xuru mbàkke yoraatoon na baneen soxna nag bu ñuy wax soxna faati aydara mook soxna faati nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee kam faye woon cheikh mamadul faadal mbàkke di sëriñ fàllu mbàkke yoraatoon na baneen soxna nag bu ñuy wax soxna assu juuf mook soxna assu juuf itim nag am nañu ak njaboota ñu mën cee ràññee nag kam faye woon sëriñ tuubaa cheikh abdul ahad mbàkke di sëriñ abdul ahad mbàkke ak faye woon nag soxna abi bi mbàkke bintu cheikh mamadul faadal mbàkke di soxna abi mbàkke yoraatoon na baneen soxna nag bu ñuy wax soxna roqayatu kebe wala soxna roqaya kebe mook soxna roqaya kebe itam nag am nañ ak njaboot di kam fayewoon rakkam ja nag sëriñ gaawaan mbàkke yoraatoon na baneen soxna nag bu ñuy wax nag soxna yëmmu njaay moom sëriñ abdourahmaan mbàkke mook soxna yëmmu njaay nag am nañ ak njabootam ñu mën cee ràññee nag kam fayewoon soxna assu gaawaan mbàkke bintu nag am nañ ak njaboota ñu man cee ràññee nag kam faye woon nag Cheikh Ibrahima Fall làmp baabul muridiina di sëriñ làmp Mbàkke soxna yii nag la dëkkoo woon moom sëriñ Abdourahmane Mbàkke njaboot yi itam nag la ci am moom sëriñ Abdourahmane Mbàkke mbar kaddu yi ñu leen di waaj a nag ay kàddoom la ab daayira nag moo ko ziyaare si woon ginnaaw bu mu leen di sant nag ak di leen ñaanal di leen ñaax itam nag ñu passeefu ci yitte yooyu ñu am nag di ziyaare seenu sëriñ ci kàddu yu mel noonu nag la leen doon ñaax nag ak di leen sant ñu teewlu kàddu yoo xam ni nag sëriñ Abdourahmane Mbar nag moo ko ay taalibeem nag yu ko ziyaare si woon. ko def di ko def faraamaan waaw yoon wu jëm alaxira moom du gën a yàgg rek yéen ngeen yokk jubal te wér jubal xéwal yi yokk amiin Mbacke ba yoon bi man di dox dox nga jàkk nangu dox dox dox nangu jàkk nekk ay at at at at yàlla suñu tax ñu ko def dangeen dugg ci yokk. te fekk la. alhamdulilah. dangay yàgg suñu kanam. waaw yàgg lool. kon nag noonu. ñun daal dañu doon yóbbu yëfi ndogu. mais da nga yàgg lool. yàgg yàgg. lool yàgg. ndax damaa xam sa tool bi jiitu. waaw waaw waaw. man ka des na sax. daal fi ma ne. suñu yokkoon ak taw ñun da nga ci xam. waaw xam ba mu toogee te nga yóbbu fa keroog càkki na jooje. naan la sëñ Mbaye ak sëñ Daam ak sëñ Mor. Mhm. daal mooy nguur gi dikk ñu gis ko teg ko yàlla téeméer mu dellu ñu yow daal ah, ay ñun xaw na far bëri. <laughs> loolu loolu la xam koy liggéey ci lii. Mhm. war naa war ngaa boole guddi ak te ne sunu jaam ñi dañoo néew man ma bëri mhm. man jaay bi ndax seen si fël asula ba sali soo defee benn ma fay dugg ndax ñoom amuñu dara bay jaay ci man man duma jël da kon nag duma leen fay maanaam duma la fay kemtare sa liggéey lu ko furaale yi benn bu ne la fay fukk fukk na ma fay téeméer téeméer duma jënd ndax neen loolu moo ci sama kilifa bii di borom Tuubaa la. ne yaar yi tax a lay. dara garu ci yàlla laaw tabaaraka mm-hmm. am soxla ko ak dimaay boobu yàgg la mu yàgg. xam nga loolu tax mm-hmm. ndax du jël ci soxla wu. est di fay nag di leen fay ci tool ne. Mm-hmm. liñ def lu ko ëpp leen. ndax soxla wu ko a ah. soxla ko ak dimaay boobu yàgg la mu yàgg. xam nga kooku ndax loolu du jël mukk te soxal bu ci la mu yem la ba adama yi rek tax na sax maa ngi ñaan bi dee ne lii doon ci nag te ngeen te ngeen mucc te yokk te yàgg ak ñun amiin am ndimbal ak tawfiq ci barke sëñ bi maa ngi ñaan ci barke sëñ bi ngeen mucc te yokk te yàgg lool biir biti seen mbir yëpp jub ngeen am ndimbal am tawfiq ci barke sëñ bi yéen rek loo ci seen njaboot barke sëñ bi yàlla bu dee ne bu ngeen di ñëw lii ndigal muy doon ci dal moo koy ñaan ci baaxu sëñ ngeen yàgg lool mucc lool yokk lool ànd barke ci baaxu sëñ su déwénee lii doon ci lool yokk lool yàgg lool ci baaxu sëñ am ndimbal am tawfiix ak paju aajo yu barkeelu yooyu nag ñu doon barkeelu nag ci kàddu sëriñ Abdourahmane Mbacke Mbar moom sëriñ Abdourahmane mbàkke Mbar nag am na ay góor yàlla na yu takkoo takkoo takku nag yu mu àndaloon nag di liggéey ngir jëmmi sëriñ Balla Coro Mbacke di liggéey itam nag ngir jëmmi xaadim rasool la di taxawu itam nag ndonal Cheikhul Xadim li ci biir góor yàlla yooyu mu àndaloon nag ñu man cee ràññee nag sëriñ Alioune Baar ci dëkk bu ñuy wax nag kër Serifa sëriñ Moulay Aydara ci dëkk bu ñuy wax nag Bangaaj Yoli ci Njaareem sëriñ Ibrahima Fall Debbo sëriñ El Hadji du Faati Joxaane ci Mbàkke Saalum sëriñ Omar Lay dëkk bu ñuy wax Mbar sëriñ Mor Kase ci Njaareem sëriñ Sëriñ Faal ca Njaay Dànq Alaaji Màkka Joxaane ca Ndakaaru sëriñ Aale Njaay sëriñ du Baar sëriñ Mbay Si sëriñ ab du Puy sëriñ Sàmba Gay sëriñ du Baro sëriñ Muraad Ture sëriñ Cheikh Mbay ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ci ay góor yàlla nag yu sëriñ Abdourahmaan Mbàkke mii nag àndaloon nag di liggéey mu def nag lu takkoo ta takku mbooleem dëkk boo xam ne nii nag waajuram nag bàyyi woon na ko fi di sëriñ Balla Mbacke bënn na fa nag ab teen demul nag màkkatal mu karama waaye doomam nag sëriñ Cheikh Abi Mbacke dem na màkkatal mu karama nag lu ëpp na fukki yoon te lépp itim nag waajuram nag sëriñ Abdourahmane Mbacke nag la ko demal Cheikh Mamadou Fadal Mbacke itim nag yebaloon na ko fi nag ci réew mi nag di Kodiwaar ngir mu ànd faak nag sëriñ Abdoul Ahad Mbacke ci ab tukki nekkoon na fa imaam itim nag julli korite ak tëbaski ci dëkk bi itim nag di Ndakaaru di guy Masaalikul Jinaan ci ndigalul nag Cheikh Mamadou na ku bëgg sëriñ Touba Xaadim Rasuul ba tax na mag ñi nga xam àndoon nag ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul sëriñ abdourahmaan mbàkke mbar daana def nag saa bu nammee na xam ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul ci mag ñooñu nag lay dem nag di toog ak ñoom ñu mën cee ràññee nag sëriñ mbay sàll nekkoon nag ci ron ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul seexul xaadim itam nag boole woon ko kook cheikh mamadul faadal mbàkke mu nekki nag ku wóolarante woon ak sëriñ amsatu jaxate wóolaranteeg sëriñ moodu xabbaan mbàkke moom sëriñ ahmadu ndumbe mbàkke wóolaranteeg njabootuk sëriñ tubaa seexul xaadim gi moo xam cheikh mamadul mustapha mbàkke ba ci cheikh murtada mbàkke ibnu liggéeyam sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ak yeneen mag ñi nga xam ne nii itam nag dañoo àndoon ak Seexul Xaadim sëriñ Abdourahmane Mbàkke nag daana leen fréquenté ngir nag di xam nag ci ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag moom mooy kan ku jaxasoo nag Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke la ndax Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke moo ko yar moo ko tarbiya moo ko yóbbu itam nag mu jàngi ku jaxasoo nag Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke la ba tax na Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke itam nag defoon na ko jëwriñ Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke itam nag bind na ay lettres yu takkoo takku di ci sant nag ju ñuy wax nag soxna abi jébbaloon ko sëriñ abdourahman mbàkke na ngir mu dëkkoo ko cheikh mamadul faadal mbàkke itam nag joxoon na ko ñaari kër itam nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba benn bi nag moo nekk itam nag ci wetu Touba 28 benn bi itam nag moo nekk itam nag ci biir marché Ocass ba tax na itam nag tudd na cheikh mamadul faadal mbàkke doom ba tey nag digganteem ak cheikh mamadul faadal mbàkke bi jumaa ji noppee nag ba cheikh mamadul faadal mbàkke nag di ko gërëm ak mbooloo mi nga xam ne nii nag ñoom la àndaloon bisub keroog nag cheikh mamadul faadal mbàkke nag mi ngi doon xamal nag sëriñ abdourahman mbàkke mbar liggéeyal ngeen loo xam ne nii nag sëriñ sëriñ Touba ñi nag te fekke jamonoom itam nag loolu rek lañ ko liggéeyal maa ngi leen di ñaanal nag la sëriñ Touba ñaanaloon nag mag ñooñu yéen it nag ngeen am itam nag ñaan googu Cheikh Mamadou Fadal Mbacke nag di ko xamal ne da ngeen am nag njëriñul suuf te it nag da ngeen mucc itam nag ci coowul suufa ku jaxasoo nag sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad la ci xilaaf ak sëriñ Abdoul Ahad Mbacke nag la génnee àdduna àndoon nag sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke nag dem Côte d'Ivoire ci ndigalul nag Cheikh Mamadou Fadal Mbacke tudd na sëriñ Touba Balla Coro bi ñoom ñaar itam nag bokkoon nañ nekk nag ci loxoy sëriñ Habibu Mbàkke imaam bokkoon nañ nekk itam nag ci loxoy Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke ba tax na itam nag ñu jaxasoo woon lañ ku jaxasoo woon nag nag sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke la ba tax na sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke nag moo ko jullee ku jaxasoo woon nag sëriñ Touba Cheikh Saalihu Mbàkke la ku jaxasoo woon nag sëriñ Touba Cheikh Soye bu Mbàkke la sëriñ Touba Cheikh Saalihu Mbàkke bu Mbàkke ñii moom dañoo jaxasoo woon nag sëriñ Abdourahmane Mbàkke Mbar ak kóolute nag gu doxoon nag ci seenu diggante di kóolute nag gu ku jaxasoo soxna assu gaawaan mbàkke la bintu sëriñ tuuba seexul xaddiim ba tax na nag tudde na soxna assu gaawaan mbàkke doom ku jaxasoo woon ak nag ñim séqal nag sëriñ balla coro mbàkke la ba tax na nag ñu ci takkoo takkoo takku nag tudde nañ ko doom nag ci njabootu sëriñ balla coro mbàkke gi ku jaxasoo woon nag sëriñ muudu busa jeng la ndax ñoom ñaar nag bokkoon nañ nekk nag ci roon cheikh mamadul moustapha mbàkke bokkoon nañ nekk itam nag daaru nahim i baleen fa cheikh mamadou moustapha mbàkke yóbboo loolu itam tax na sëriñ muudu moustapha mbàkke falilu tudd na ñaari yoon doom nag sëriñ abdourahman mbàkke mbar ku jaxasoo woon nag sëriñ Mbacke Gaynde Fatma la ak Serigne Mbacke Madina ndax ñoom ñii kat ñoo demandoo woon gànnaar ñoo jógee ndoo itam nag gànnaar ku jaxasoo woon nag njabootuk Serigne Daaru Assane Ndiaye lañ ndax ñoom ñooy ay nijaayam ba tax na ñaari soxnaam yi itam nag fa lañ jógee muy soxna Faati Ndiaye ak soxna Yëmmu Ndiaye ginnaaw kóllëre googu mu amoon nag mag ñi ak mbokk googu nag mu amoon nag mag ñi mu nekkin nag ku tabe nekkin nag ku bëgg ku baax ki Serigne Touba Xaadim Rasuul eggoon na itam nag ci ak tab tayub añ laataa ñu koy sóor nag mu ba joxe eggoon na koo maye ñi ko jege woon nag te xam ko bu baax a baax nag moom doomu sëriñ Balla Coro bi waxoon nañ ne nag dab ko nag ci ak baax nag yombul loolu itam nag tax na nag bi mu génnee àdduna seede si ko sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke defal loolu itam nag ci la bokkoon ndax ku tabee ngi nii nag la waxoon ku bëggoon sëriñ Touba Cheikhul Khadim nag mi ngi nii xamal nag sëriñ Abdul Xaadir Mbacke jébbalaat ko sëriñ Touba Xaadimu Rasuul rek mooy nag li ñu war booleem ñi nga xam ne nii nag seede nañ nag ci doomu sëriñ Balla Coro bi ak baax nag akuk tabam nag ak bëgg sëriñ Touba Cheikhul Khadim itam nag lañ ko seedeel soo delloo nag ci bindum sëriñ daam bu sa mbar ci xasida gi mu bind nag jagleel ko sëriñ abdourahman mbàkke mbar mi ngi wax nag ci biir xasida gi man sëriñ daam buso maa bind nag xasida gi jëmale ko nag ci sang boo xam ne nii sang nag buy dimbalee la sang boo xam ne nii nag boroomuk tab la sang la boo xam ne nii nag moo gën ci mbooleem nag nit ku ñuul ak nit ku weex moom jëmm jooju nag ku tabe la ku ragal yàlla la waaye ku set wicc la nag ci suñu boroom ku yiw la tey nag kuy sàmmante mooy ndamul nag mbooleem gaa yu baax yi waaye moo ci gën jëmm jooju nag moom mooy kan mooy jaam bi nga xam ne nag aw turam ñi ngi ko jëlee nag lenn itim na ci turu suñu boroom yi muy abdourahman abdourahman moom nag moom mooy kan moom mooy doom doomi nag abibullahi mi nga xam ne nii nag moom moo làq nag lépp loo xam ne nii nag ci ay cant la kon nag maa ngi lay sant man sëriñ daam bu sa mbar lu yaatoo yaatoo yaatu daal sëriñ daam bu sa mbar bind jegleel ko nag doomu sëriñ Balla Coro bi ci tabam nag ak yiwam ak bëgg nag sëriñ tuubaam ñu teewlu ko minni البيض وسوده ندب تقي نقي صالح ورع فخر الكرام حميد خير سنديد عبد المضاف إلى الرحمن نجله xabiballaahi man qad xawaa kulla almaxaamidi usni calayka isaa maa cistu muxtasiban wa in raxaltu fa madxii gayru mafquudin haadi alhadiyatu gosha yaa karimu bila raddin fa xoyiita yaa xilli mawduudi moom doomu sëriñ Balla Coro Mbàkke bi di Abdourahman nag ibnu Awf mi ngi génn nag àdduna ci feebar bu ko tëral ci hôpital nag principal nag bu ndakaaru ci bisub altene fukki fan ak juróom ñaar nag ci weer wi nag di rakkaat ji gàmm ci atum 1401 nag ci gàddaay gi altene fukki fan ak juróom-ñaar nag ci weer wi nag di rakkaat ji gàmm ci atum 1401 nag ci gàddaay gi dëppook nag muy lundi 23 mars ci atum 1981 lundi 23 mars 1981 ñu jëlee ko nag ndakaaru nag ci opital principal indi ko nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba ci xilaaf nag Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ci teewaayu nag mbooleem njabootu ku baax ki Serigne Touba Xaadim Rasul Serigne Touba Cheikh Abdoul Xaadir Mbacké nag moo ko jullee ñu jébbal ko nag boroomam nag ci wetu waajuram Serigne Balla Coro Mbacké Mbacke bisub keroog nag sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke bennub seede rek nag la def nag ci ginnaaw doomu sëriñ Balla Coro Mbacke bi ci njaboot gi nga xam ne nii nag fekkee woon nañ nag bisub denc bi Cheikh Abdoul Ahad Mbacke ginnaaw bu mu jëlee kàddu daa xamal nag sëriñ Touba Cheikh Abdoul Xaadir Mbacke ne ko nag wax ji nag du bari ndax jëmm jii nga xam ne nii kat tey jii nag moo ñu dajale nag ci armeer yi ku bëggoon sëriñ Touba Cheikhul Xadim la ku tabe nag la woon li ñu war nag mooy delloo ko nag Cheikhul Xadima daa ñaan nag ñu denc ko nag ci ron waajuram moom nag sëriñ Balla Coro Mbàkke soo delloo nag ci way yi ko naar bi way di Aboubacar Asan Kayti di naaru gànnaar soo delloo nag ci way yi mu way sëriñ Abdourahmane Mbàkke Mbar mi ngi jël way yi nag jagleel ko nag sëriñ Abdourahmane Mbàkke Mbar way yooyu mu jagleel sëriñ bi nag mi ngi koy misaal nag ci benn jigéen nag bu siiw a siiw bu tuddoon nag indi indi nag ab jigéen la nag bu rafetoon a rafet ci melokaanu jigéen woowu nag la jaare way yi mu way nag sëriñ Abdourahmane Mbàkke Mbar ngir nag di ñu ko misaalal soo delloo nag ci biir way yi nga xam ne nii nag Aboubacar mi ngi koy way nag sëriñ Abdourahmane Mbar mu jaareele ko nag ci gént gum doon gént nag jigéen ju taaru jooju nag di ind mu ngi xamal nag ay ngëmeentam ak nag ay nelawam jeex na nag ci guddi gii bi ma xëyee ba tey nag ay nelaw nag mënatuma koo am ngir nag di xalaat jigéen jii nag di ind aka neexoon nag ma nekk ku koy bége lool nag ci waxtu wi nga xam ne nag mi ngi ma doon tàggu ngir ma mën a amaat nag dëgg dëggi samay sàkku téef cay ind jigéen la joo xam ne nii jigéen la nag ju mat bind waaye nag ku rafet koo xam ne nii xar kanam gi daal foo nee ko weeru badar moom day tax nga fàtte ko weeru badar nag soo ko xamul mooy guddi fukki fan ak ñett nag jàpp guddi fukki fan ak ñeent weer wi nag leer googu muy leer nag saa boo jàkkaarloo nag xar kanamu ind da ngay fàtte nag leeraayu weer woowu cofeel googu nag saa bu ma faatee dinaa ko sàkkuwaat nag tey jii ci waajoo xam ne nii nag ku tabe la waajoo xam ne nii nag kuy joxe la kooku nag moom mooy kan mooy abdourahman di boroomi ngëneel di borom tedd nga di doomi nag sëriñ habibullahi ñu gën koo xam nag ci sëriñ Balla Coro Mbàkke di boroomu kóllëre mooy ki nga xam nii nag gaa yu baax yépp nag dañ koy puukarewoo ngir mel mel ne moom ñu nag ñu ngi yaakaar nag ak nekkam nekkit nag ak kaaraange nag ci ñun ci lépp loo xam ni nag day waral nag ak yaraange ak baaxam nag ak tabam ci ab taw nag la koy misaal ak dimbalee itam mi ngi ko jàppee nag docteur bi nga xam ne nii nag da ngay ñëw ak sa feebar mu faj la ba pare nag te du la laaj dara te lépp itam nag mi ngi ko jaarale rek ci tenxam mooy ki nga xam ne nii nag bu dee joxe du joxe mukk nag lu tuuti te su koy joxe nag du ci ànd ak benn njistal mooy ki nga xam ne nii nag képp koo xam ne nii nag dem nga këram seeti ko moo xam ngay góor nag wala ngay jigéen sooy dem nag sa xol bi set wicc wécci saa boo fa jógee nag di ñibbisiwaat di nga nekk itam nag kuy sant suñ boroom di nga xam ne itam nag la nga fa doon sàkku itam nag jot nga ca way yu yaatoo yaatu daal la ko naaru gànnaar bi way di aboo bakar jagleel ko nag doomu sëriñ Balla Coro bi nag di sëriñ Abdourahmane Mbàkke Mbar ñu teewlu ko faddanil yawma an kira aw manaami zikru hindin wa xad xalat fi sinsiraami laytanil yawma kuntu minha qariban zalika alwaqtu xustu kunha maraami yaa laha min tamaami xalqin wa xusnin maa wajhin yunsika badra tamaami fa idaa faatani almawaddata منها رمتها اليوم من كريم الهمام ذاك عبد الرحمن ذو الفضل والمجد ونجد الحبيب وافي الزمام من به يفخر الكرام ونرجو كونه حمية لنا عن ملام مثل غيث بالجود مثل طبيب بالدواء كفه صفاء السقام وهو يعطي الجزيل دون رياء بل لوجه الإله بارئ الأنام من يضر باره بقلب سليم يرجع ذاكرا على مقامه فسلام عليه في كل حين ما يحوظ التقي حسن الختام أي خليفة من nii la tëddee moom sëriñ abdourahmaan mbàkke sëriñ maam balla mbàkke di kam faye waajuram wa sëriñ balla coro mbàkke moo nekk nag ab taawam moo nekk itam nag ab xalifaam nag bu njëkk ci atum 1981 ba nëgëni ñu koy ñaanal nag suñu borom guddal aw fanam nag te wéral ay cëram te yàggal ko nag ci toogaayu waajuram boobu nag di sëriñ abdourahmaan mbàkke ak mbooleem nag ñu mu séqal sëriñ abdourahmaan mbàkke moo xam muy góor ak jigéen sëriñ abdourahmaan mbàkke nag am na bis nag buñ koy fàttaliku ci luñ tudde ak màggal doomam njaboot gi ñu am nag bis nag bu ñuy fàttaliku nag seen waajur wa bis bi itam nag bu njëkk daanañ ko fàttaliku nag ginnaaw tabaski mujj gi nag lañu ko jëlee nag ci ginnaaw tabaski yóbbu ko nag ci ginnaaw bu ñu gàmmoo ba noppi bis bi itam nag amul bis fixe nag ci at mi saa bu ci njaboot gi waxtaanee bu juboo la ñuy jàppal nag bis nag sëriñ Abdourahmane Mbàkke màggal gi itam nag benn bërëb rek nag lay amee muy dëkk bii ko waajuram bàyyeeloon nag di mbar mbàkkee màggal gi nag màggalu guddeeg bëccëg lay doon màggal gi itam ginnaaw bu ñu gàmmoo ba noppi nag lañ koy jàpp ko amale nag ci dëkk boobu nag di mbar mbàkke ñuy ñaan ca ka sëriñ tuubaa seexul xaddim waxoon ne nañ ko tudde sahabab yonent bi di abdourahman ibnu xawf di sëtub sëriñ daaru hasan njaay ba yàlla nañu ko suñ boroom fayal nag te yokk ay leeram te taas ñu itam nag ci barkeem ci daraja yi nag mbooleem nag maamam yi amiin nag maamam yi amiin nag maamam yi amiin nag maamam yi